bi dégg leen tuuti dégg leen tuuti wa rahmatulahi sëriñ bi sëñ Gana Messere mii laa lay dolli tuuti ay seere ci moom bi ñëwee dama ko ne maa lay sëriñ bi ndax ay bokkam sa njaboot lañ baayam mooy magi Cheikh Mesere Cheikh Mesere baayama ñu dokk ci mbaakol waaye ba muy ndaw la ko yàlla dimbali woon mu teel a bëgg sëriñ bi teel a jeex ci sëriñ bi tàmbalee na ca ba muy jàng ka jéem dara la dàkkanteeloon boppam suñ gànn Mesere Maxtaar sëñ Modou Maxtaar moom sëñ Cheikh Obal la ko baayam jébbaloon bëgg bëggu bëgg sëñ Modou Maxtaar moo tax mu doon dàkkantal boppam sëñ sëñ sëñ Modou Maxtaar waaye yoon woowee ci la jaar di jéem a xam te lu mu di ko jéem a delloo ci sëriñ bi di ko jéem a gindee taalibe yi ci sëriñ bi ci biir réew mi te ba mii mën a dajale ñetti nit ba muy dajale fukki nit ba ba muy weesu foofa ñu di ko woo ci bitim réew fu mu fa dem itam xam jëpp dara du ci génn sëriñ bi dara du ci génn jàngale sëriñ bi te lam xam ci sëriñ bi lépp yàlla di ko ci dimbale itam la muy wax nit ñi ña ngi koy dégg bu baax di ko jariñoo yoon woowu bu mu koy dënk ci la jaar ba bëgg dem ñu woo ko ci télé di ko waxtaan moom ci sëriñ bi waaye yàlla defal ko sëriñ bi sëriñ bi ci boppam moo ko ca gàttandoo takkal ko ce médaille mu rëy defal ko ci sak boo xam ne mos ñoo invité kenn ci télé ba mu am ko ce donte am na ñu ko ëpp xam-xam itam sëriñ bi fekke na ko ca fekkee boo xam ne mosuñ daa fekk kenn ci télé lañ fa woote jox ko ngir jëmmi sëriñ bi jox ko biye makka jox ko ñu xal lépp ñaar fukki million looy am woote joxe ko jëmmi sëriñ Tuubaa rek tax jeex gum jeex ci sëriñ Tuubaa nag. gi ak dëggal rek la. bi nee na dëggu gi ak dëggal gi. ak ak pasteef bu rëy bi. nee na sëriñ bi daa am pasteef bu boppam. sëriñ bi nee na sëriñ bi daa am pasteef boppam boo xam ne yàllaa ko ko jagleel. pasteef boobu na ku mu nekk ci moom. danga nga am tawfeex ju rëy a kon sëñ gànna lépp la ñu waaw dana dafa ànd ak mbokk ta mel mbokk moo xam ne daa duggagutoon ci diine ji bëgg a dugg ci diine lislaam moog sëñ Gana ñoo ànd ba nga ne day ñëw ñi ñaanal ko mu dellu ci ñëpp la kanam mu tegtal ko li mu war a def baax na waa tàllal mi ngi nii dafa duggagul ci lislaam ngir déglu gi muy déglu waxtaanu si Gana ci sëñ Tuubaa loolu moo ko am eh, xiirteel ba mu bëgg dugg ci lislaam ak jubal da doon taalibe moo tax mu ànd ak moom ngir ñëw nga ñaanal ko ñu wan ko yoo bisimilah te tàllalal def tàllal tàllal sa loxo tàllalal tàllalal kon sëñ Abdou Lakram mi ngi nii waaw moom nañ koy yóbbu après da nga ñaanal ko rek yóbbu ko sëñ Abdou Lakram wuy ma nañ ko yóbbu sëñ Abdou Lakram mu ne nga dugal ko bana nga a ñëw ñaanal ko nga dem ci kee nee na nga dem ci seen lagam mu wax la nuy duggee ci islam ba noppi mu indiwaat la fii ci moom nga tàllal sa loxo moom sëriñ bi ñaanal la boppam dégg nga demal ànd nga demal ne kosa ubbil ko kosa ubbil ko demal daa wax ni ñi maanaam soppe yi seen at yi soppe sëñ Gana yi ngeen dégloo tuuti ñu àggale leen seenub siyaare ci lañ nekk sëñ Gana da leen di jot leen seen at yi ci sëriñ bi ni nga koy jot bi ngir sëriñ bi defal leen ko ci liggéey bi ngir sëriñ bi gën noo fàggul noo àndandoo liggéeyal sëriñ bi ban bokk tawfeexi sëriñ bi loolu rek la nu sëriñ bi fàggul te mooy li am solo ci kon ngeen ko dégloo daa wax ne ñi ma àndal xaadim waaw xaadim di xaritam di léppam di ko dimbale ci lépp nag ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaw mhm. waaw moom yi moo ko moom sëriñ Gana Messere sëriñ Gana mi ne sëriñ bi jox na ko seen i addiye wax na ko seen taxawaay ak seen yitte ak seen pëstéer sëriñ gànna sëriñ bi nee na ngi lay sant di la gërëm ak mbooloo mi nga àndal lépp di am mbégte lool ci ànd bi ngeen ànd ak moom ci liggéey sëriñ Tuubaa bi xam na sa yitte xam na sa taxawaay xam na sa pëstéer li ngay liggéey ci yoon bi xam na lépp nee na na nga dalal sa xel te wéttalikoo sëriñ bi nee na nag mi ngi fas yéene feddal ay laxasaayam ànd ko ak yéen mi ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ñaanal yéen ñëpp suñ borom dimbali ñu bañ dajee tawféex sëriñ Touba seen lépp gën a yomb seen lépp gën a yëwén seen lépp gën a barkeel kon na ñëpp tàlla seen loxo tax am tal waaye bëgg na ko fas si ñaan li ma doon seere dama doon seere rek sama digg moom laa àggutoon dara pour di laa laal ndax dafa yàgg am ci man cofeel moo tax ma ne kon damay bokk ci soppeem yi ba may tuddi ay bis yu muy def bis yi daje duñ bëri mu di ma tuddi ay bis ci dama seereel loo xam ne man dama ko ab soññee laa ko defoon sama bopp di wax ne gis na ne ñu bari fi jamono toll wala ma tolloog ñoom ci jamono am na lu ñuy woo loo xam ne moom daa gis ne loolu yitteelu ma mu tellement seereel na sëriñ bi rek mu yitteel bu bëgguma dara ci li ñuy bëgg sëriñ bi laa bëgg mu seereel ma ko ci biir réew mi ak bitim réew loolu ab soññee la boo xam ne faaw ma seereel ko te moom gànn mii moo ko doon seere ci man bu loolu rek laa ci dox kon soo koy rek nga tàllal sa loxo te wax so yi ne ñëpp tàllal seen loxo sëriñ bi sant na leen gërëm na leen da ngeen tàbbee ci kër gi rek nga xam ne ci yéen ngeen jëm si ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp toogal may fàllu si mu jël tuuti mu jël na ñëpp tàllal seen loxo bismillah nee leen amin rek te lu waaye bëgg na ko fas ci ñaan gi amin amin tur na ba na ñëw amin amin nee leen amin rek te lu waay bëgg na ko bas si ñaan gi amin amin jërë ngeen jëf tilka day.